Euh, alhamdulilah ñu ngi ci ñu ngi jublu ci bis boo xam ne bisu. di El Hadj Mouhamed Zeynabou ñu ngi ci préparation yi ci wàccaay pour dara gan ci lépp loo xam ne daal wax dëgg yàlla bis bi laaj na ko ñoo ngi ci ci yëngatu suñ kemtalaay kàttan ndax bis bi jar na ko ki ñu koy defal tamit jar na ko ndax euh, liggéeyam ci ci diine ji. Euh, rawatina faydo fayda Maolana Cheikh Ibrahim bii nga xamante ni ci dañu nekk ñun ñëpp wax dëgg yàlla lim ci liggéey kenn kenn mënu ko natable rawatina nag ci diina lislaam ci xam-xamam ci liggéeyam tey bu ñëwee fii Kër pour yaatal liggéeyam liggéeyam gën a mën a yaatu ñi nga xamante ni ñoo soxla diina ji soxla xam-xam moo ko taxoon mu ñëw fii nii. di wax ne rek ziyaare alaaji ma séyna bu waajaayam du jeex ndax nit la koo xam ne nit la ku ku ku liggéeyal kër yoro ku àndoon nag mag ñi ci liggéey bu rafet jiite leen ci si lu baree baree bari euh, ànd ak ñoom ci ci ci ci ci diine ji ànd ak ñoom ci ci tarixa bi ànd ak ñoom ci ci ci waar wi ànd ak ñoom ci yar bi loolu yëpp alaaj ma bu def na ko kër yoro ba tax na loolu si lañ si lañ si lañ ñu nit si lañ yoon woo si lañ aw guddi ak bëccëg comme ni mu nekkee woon ak suñuy waajur ñu nit noonu la ñu nekkee ak i doomam ak i sëtam euh, wax dëgg yàlla alaaji ma bu kër yor mënuñ koo fa ndax euh, def na si diine lu am solo Euh, mo ñëk a tabax fi juma juma jo xamni ñëpp ñoo si Japon waye aussi mu neewon ko xamne aussi ko lewet la won mu neewon ko ku ku amoon aussi si jami yalla yi dal leen dimbalé dal leen xettali si lu rek lolu motax mu andon ak bàyyi fi ci kër yoro ba ande ak di ak bàyyi ci kër yoro lolu dañoo judd fekk ko fi ñun itam ñu teg suñ tànk fa suñuy kilifa tegoon seen tànk si ànd ak alaaji ma seen bu ak bàyyi loolu wax dëgg yàlla gisuñ ci benn benn benn réccute ndax yokkute rek lañ ciy gis yokkute lañ ci am. wax rek ne mbégte bi ñu am tey ak kontaante bi ñu am tey ba nga xam ne mboolem waaye di préparer mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne war nañu wàcc ci bés bi ñu jàppalante ak ñoom. ci lépp luñ bëgg ci xeetu teraanga ci xeetu jaamu yàlla ci xeetu mbégte ba nga xam ne sëriñ si naal yi ñu naal pour indil ñu ko incha allah ñun ñëpp ñu jot ci ànd ak mbégte bànneex ànd ak jàmm ànd wét loolu mooy bésu tey bii ñun nag ñu nekk ci activité goo xam ne maanaam wàllu organisation bi juróomi kuréel la fii ci Kër Yoro man ma jiite ko di wane sama mbégte ci programme bi nga xam ne nii ak mbégte mi ak bànneex bii nga xam ne nii Kër Yoro mi ngi ko xam ci bés bii ñu dëgmal muy bésab sunu sëriñ du sunu kilifa du sunu wajut di Cheikh maam Alaaji Mohamed Zeynabu ñu gën koo xam fii ci Kër Yoro mu am bés boo xam ne nii bés bu jara fuglu la bés bu taaru bés bu neex ñu am ci ay activités yoo xam ne ni yëpp ñu ngi sacrifier suñu bopp di ko def ngir moom ak yàlla ak yonente ba bàyyi ñu sa Seexu Tijaan yi maamalaaji moomu moo ñu jaral lii nii nga xam ne ni tey képp koo xam ne nii ku xeewoo kër yoro la tey rek yaa ngi xëy ci maam alaaji nu programme bi gën a rafetee ak nu mu gën a ñoŋee lii doon loo xam ne lu neex tund kër yoro la mbooleem kuy ndaw tey dëkk ci dëkk bi tey xamul kenn ku ci am benn ngant ñëpp ñu ngi jóg taxaw di defal maam alaaji Mouhamed Zeynabu bésam bii ba nga xam ne ni ak njabootam dañ xam ne kër yoro téye nañ seen baay te aussi kër yoro téye nañ seen doom te kër xam ne kër yoro téye nañ sëti maam alaaji Mouhamed Zeynabu yi felu ko rek nag a xam si pasteur torop ak dañaan fekke ko ay déwéni déwén borom affaire bi it yal nañ toog ba am fanam bi am barkeem bi am barkeem maam baay ñu fekkee ñun ñëpp bu ziara bi jotee ndugg bi ndax dana dox wala déet. ndugg bi day dox kay. ndax dëkk bi dañ ko démb avant di ñëw fi ne lu waay di jaay rek sax avant tey sax mu ngi dox ndax lépp sabablu ko ak sabablu borom bis bi ak bëgg borom bis bi rek ak mu ñor ñu lool nag waa yoro amul amul koy daal. amul hmm, mi ndax ku mi ñu ci bi. programme yu bari daf koo gàllankoor euh, waaye nag bi yàlla defee loolu danañ nangu dogalu yàlla waaye tamit nag gënaluñu ndax bés bi yokkute la ci ñun yokkute la koo xamante ni buñ toogee amul rek wax dëgg yàlla yëg nañ yàlla yëg nañ ne am na loo xamante ni wàññeeku na ci ñun wax dëgg yàlla ndax ci tudd wàllu yàlla wu mel noonu ci fi ñu koy tuddee loolu yokkute la buñ toogoon rek di wër di tudd ñii tey ñu ngi xaar bés bi bisu ziyaara aj Mouhamed Sène bisu ziyaara aj Mouhamed loolu rek doy na ziyaara. loolu moom métti woon nañu torop métti woon nañu lool ndax dañoo ub commencé woon ubbeeku ci àddina bi te kenn ubbiwul ko lu mooy alaaj Mouhamed Seynabu kon suñu suñu sëriñ ñëwee defal bés yooyu ñu jàll ci ñetti yoon mbas ñëw tëjal ñu ko métti woon nañu torop ndax gis nga sax dëkk bi lëndëm waay bi mu commencé woon a def ndég loolu waaye tey biñ dellu si rek wane na ne lépp ubbeeku waat na te ñu ngi ñaan yàlla benn gaar-gaar bu mu amati incha allah. lépp yemb na lépp loo xam ne lu ñu si waroon a def la def nañ lépp def nañ lépp. sant ñu ngi sant borom dëkk bi di sant imaam di sant mboolem koo xam ne woote na di sant waa Mirina ñuy oy si danañ leen dalal wàcc suñuy lal jox leen wàcc suñuy néeg jox leen waaw léegi daal am nañ si yéene te moom daal yal na ko yàlla eggale bés bi daal moom macha allah ñëpp a ci kontaan amut góor amul jigéen ñu ngi oo ñëpp nag. góor ak jigéen amut soose amut pël amut kenn ku yàlla man loo rek woy suñu ku woy si danañ la allah. waaw ñu ngi oo nag may njëkkee mooy suñu mbokki bopp yi famille bi famille bi nag suñ ko tuddee ci Maam Abdoulaye lañ koy dalee ndax famille bi dafa yaatu waaye ñu ngi oo képp koo xamante ni rek yaa ngi yokk ci Maam Abdoulaye Niass ñu ngi oo képp koo xamante ni yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah ñu ngi lay oo ci bis bii nii ndax El Hadj Mouhamed Zeynabou yemutoon rek ci famille bi yemutoon rek ci senegal rawatina nag suñ mbokki Gambie yi nga xamante ni moom daana jóge ko fii di dem Gambie di jàngale ci jamono baayam ak ci gannaaw boo xamante ni baayam jóge na fi génn naa dina muy maa jot laa ñes kon wax dëgg yàlla bis bi Sénégal ak Gambie ñoo ko bokk ñoo kon ñu ngi leen ci oo ñoom ñëpp di ci oo mboolem jullit ñi ci àddina bi di ci oo mboolem soppe yi ak xayir moom ndax moom amoon na sax ay relation ak tubaab ci relation boo xamante ni bu yaatu bu yaatoo yaatu la kon wax dëgg yàlla ñu ci oo daal mbooleem koo xamante ni daal bis yu mel ni ñor na la ñu ngi ci oo ci biir réew ak ci biti réew bàyyiwuñu kenn.